njort di ko wax ci suuf moo tax nag tey jii pouvoir ak opposition ñu fari ci ku jegeek donkaasi gi ñoom ñëpp euh, ñi ngi ci ab xiini mii ni daal ba kenn xamul fan nga ci taxaw ñoom ñaar ndaxte ko ci laaj rek la mu lay tontu du leer bokk na ci ko ci tontu di Seydou Gueye ngànk kàddu ko waa APR yi fare ci donkaasi gi mu ne daal am na ci ay kàddu yu wute waaye li jàpp ba jamono yi mooy élection yi ni fale nday juree bokk moomeel yi di local yi ci atum 2022 lañ ko namm ci bi at bi door ci weeru février loolu la Seydou Gueye wax waaye nag nee na xalaat la waaye doonagul loo xam ne teg nañ ci loxo maanaam mooy seexale local ak législative. lii quotidien lii quotidien wax ba léegi ci wàllu le mu mel ne rek fa Seydou Gueye tëggee fa la kii di Mamadou Moustapha Diagne Diagne di coordonnateur Macky 2012 Tulle moom nag nee na daal loolu lu war la maanaam daal jamono yi ci wàll ko politique seexale lii di local ak législative lu war la fii ci réew di Sénégal loolu di kàddu kii di Mamadou Moustapha Diagne. moom mu ngi boole bokk ci gars yi Macky Sall yi. le quotidien. le quotidien wax ne loolu moo waral tax waxtaan wi doon dox ci diggante waa na di ñu fare ci kujje gi ak ñu fare ci donkaasi gi ngir local yi ndaxte ñi fare ci. kujje gi dañ ne ci atum 2021 bi lañ ko bëgg rawatina ci weeru ko décembre waaye ñu faree ci donkaasi gi nee na ñoom li ñu bëgg mooy ñu dem ba atum 2022 moo tax waa FRN ne waxtaan woon séqoon ñoom jug nañu bokkatuñ ci benn yoon ñoom opposition bi nag daal na daal nguur gi la mu waxoon ak ñoom def ko waaye tey ji la assemblée nationale fa seenee tranché te ñëpp xam na ni assemblée nationale bu xàccee bu dooree fa lay dal. Sud Quotidien. Sud Quotidien wax ci report yooyu le ak li jëm ci locale yeeg kañ lañ ko war a amal assemblée nationale moom mooy arbitre bi waaye boobule arbitre moom bu sifflee xam nañ fa jëm Antoine Félix Diome moo fa seenee jàkkaarloo ak ñoom. di ministre l' intérieur majorité mécanique ba fare fële ci assemblée nationale Sud Quotidien nee na dina jàkkaarloog opposition boo xam ne amul benn pexe ngir mën leen a jubanti critique ne ñàkk déggoo beneen ñàkk déggoo teewaat na ci diggante kujje gi ak ñi fare ci donkaasi gi ña ngay fasante si kim ñeel élection locale yi ñu ne report boobu lee ñeel lii di armu naatu jongen euh, yi ñeel élection locale waa FRN ñoom nag nee <coughs> nguur gi <coughs> gërkaay doole gi mu namm seen diggante ak ñoom ñoom du ci ànd benn yoon moo tax euh, ñoom lànk nañu bañ na loolu du am waaye nag daf mel na seen pexe bariwul. ba laa la turbine <laughs> ba léegi des ak local yi que bëtal gin ko fas yéene bëtal opposition bi ñu ngay wér di mer ba léegi seen diggante ñoom ak ñi fare ci nguur gi. Ah, bu ma amoon kafe nag dina <laughs> baax Seydina euh, naanagul dara. las <laughs> las yéen kaay wax ci euh, société civile bi ñoom nag daal danoo bëgg a neexal ñëpp bëgguñu kenn mer ndaxte neenal comme euh, ñi di fare ci donkaas gi dañ ne jan euh, février atum 2022 ñu fare ci kujje gi ne euh, weeru décembre atum 2021 ñoom nag ñu ne janvier atum 2022 benn weer moo dox ci diggante bi mu mel ne rek dañuy coppet ci biir ndong ci bi l'observateur <laughs> l'observateur wax ci dialogue politique bi mu ne dialogue bi nag jeu et piège mu mel ni danoo mel ni kii yoote waaye te daf mel ni ay ndëgg sërëx da cee lalu ñu ne nag ñu fare ci majorité bi di euh, donkaasi gi nan loon def ba ñàkk opposition bi ndaxte opposition bi dafa tegu ci lenn ni atum 2021 la maanaam daal tëgg sa ndënd ak semiñ lay doon seen diggante nguur gi neex benn naqadi benn kon ci atum 2021 ñoom ca lañ ko namm enquête cawli li enquête ci la dikk mu ne Dakar c'est la mère des batailles cawli cawli mooy nguur gi dafa jekkoogul ndakaar ndaxte Khalifa Sall jamono yi jugaat na di dox mbokk Ousmane Sonko moom seen am na lu mu bëgg ñu fari ci donkaas gi ñàkk wóolu seen bopp PDS ne ñoom Dakar ak feneen la ñu yamale ñoom daal fépp foo xam ne tëgg nañ ko rek bu leen woyee ci pecc mi dinañ ca bokk mu mel na Dakar moo waral coow li. les échos. les échos wax eh, ci eh, kii di FRN ba léegi ci dialogue boobule ak pouvoir bi déggootunu benn yoon wax na nag ci APR ñu ya nekkee ca diwaanu ko Podor ak meeting bi ñoo amal ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ñoom nag tagg nañu Macky daal raxas ko ba mu set waaye opposition moom dóor na leen ay jum Abdoulaye Daouda Diallo ne Podor moom mooy titre foncier bu président Macky Sall te day wéy di ko nekk waaye kii di opposition bu Sénégal mu ne danoo amatul fu ñu jëm moo tax ñu jël fitna def ko seen yatu xeexukaay waaye tey itam moo waral ñi nasaxal mim réew di Sénégal waaye réew mi Macky mooy ki ko moom. source a <laughs> source a wax ba léegi ci euh, gaa yeeg euh, waa ñoom lay Daouda Diallo ak Cheikh Oumar Anne fële ca diwaanu ko Podor. ñoom nag daal seen meeting ban fa doon amal mu doon meeting boo xam ne XXL la maanaam dajal mbooloo mu takk foofulee fas yéene rek jongante ak gars yi waaye nag li jëm ci local yi ñi di experts yi nag woon na leen ngir ñu àtte ci diggante ñi di kujje gi ak ñi fare ci bokk gi. Vox Populi. ku dem Podor xam ne weddi gis bokk ci foofay titre foncier bu Macky Sall loolu la gars yi Macky wax. 24 euh, heures. 24 heures ne Benno Bokk Yaakaar. danoo war a xool lan mooy réalité gi ak lan mooy dëgg gi fii ci réew di Sénégal nag parce que bu ñu xoolee jamono yi ginnaaw euh, fii ci Ndakaaru ba dëkk bi yëngoo xale yi jug Macky ñëw wax ci emploi des jeunes ñoom ñu dem di meeting ci wàllu politique mu mel ne rek bopp day métti ni ñu faj tànk ndaxte ci fi leen ni xaar ci wàllu ko xëy ñoom dugguñu fa moo tax yéeni kaay bi di 24 heures di leen fàttali ni coow li coow li xëyum ndaw ñi la. Direct News. Seynabou Gaye Touré mooy président conseil départemental bu Tivaouane moom nag ab la ñu ko jox. Le Soleil. la soleil yéeni kay wax ci hydrocarbures ci Sénégal lu toll ci cent trente six virgule huit huit milliards bu france fa moom la ñu euh, def ngir rek euh, daal soxali gaz bi fii ci mim réew di Sénégal yéeni kay bi di le soleil dellusiwaat ci ak ñun libération libération dikk ak ñun rek ci li lii di euh, banditisme foncier ba am ca Dugar dugaar nag mi ngi ci Diamniadio lu toll ci téeméer ak juróom euh, fukk ak ñeent ci ay hectares la ñu jëlee ci askan loolu nag ñi ko def bokk na ci autorité administrative yi waaye itam bokk na ci bi ay euh, marocains yi ñëw foofu la ñu jël suufu waa Dugar jox leen ko Dugar di ab dëkk boo xam ne dañ fay bay légume Seydina Omar réew mi réew mi ñëw euh, ci location bi nag ñu naan loyaas bi dafa seer yàgg nañ kaa wax moo tax euh, fasante sikkim am ci diggante bailleurs yi ak locataires yi mu mel ni waxatunu benn kàddu werante bu tar moo ci am ndaxte weer wu neen moom ak loxo ba lay tàllal yenn saa mu dis ci borom kër yi. Dakar Times. Dakar Times wax ci secteur informel bu Sénégal ne 89 virgule 4 pour cent des unités de production ñoom amuñu ay employés salariés maanaam ñoo xam ne weer wu ne dal leen yi daggal salaire. mu mel ne nag la kilifa ga doon wax salaire moom di xam la ngay jot weer wu ne bokk na ci néew wërsëg. <laughs> gàtt wërsëg. estat <laughs> estat yéen kaay bokk na ci li mu dugg mooy Aliou Cissé en sursis maanaam danoo naree dem ci éliminatoire mondial yi mondial yooyu ñu jëm ak li mu wanee Aliou ci ñaari match senegal yu weesu yi. moo tax estat ne Aliou Cissé yi ci surtout la ne faaw mu defaraat toggaayam ak gën a jekkalaat ay mbiram ndaxte ni muy doxee daal baaxul ci moom. sunu làmb <coughs> sunu wax ci ex roi des arènes di kii di Eumeu Sène ginnaaw ba mu ko jëlee ci kii di euh, bombardier moom roi des arènes bi Modou Lo nanguwaat ko ci moom diggante ak Lac de nag moom kooku di Eumeu Sène war na def lépp ngir jotaat roi des arènes bi moo tax euh, bàkk bi ñu indi mooy gagné gagné gañe euh, lu Laurent Gbagbo doon wax gagne on gagne ou on gagne waaye tamit kii di Lac de Guiers numéro 2 gars yi jàngat nan ni mu xereñee ci wàllu lamb nee nan kii di Lac de Guiers numéro 2 moom euh, daal mun na daan mbër mu ne ndaxte mbër mu tëla ndaxte ni muy bëree manaam képp ku mu jàkkaarloo xare xare mun na tël si sa kanam ndaxte day li wala fi wax day samp tël maanaam daal du songu daal day samp tël day maanaam xam na Omar da dégg wala. xam nga mbër moom daanaka moom warul song moom. Eh. daan la day jafe. daan la daan la day jafe moo tax. <laughs> loolu mooy samp samp tëbi rek. <laughs> moo tax waa géej waaye nee lag eh. Lac hmm. yaakaar na ni à 200 pour cent. Hmm. mën na daan ëmb waaye bul fàtte ni ëmb daan na ku lu niil benn yoon. benn yoon ah, kon nag léegi li li ci des mooy. fayu rek wala daanuwaat wala daanuwaat jaajëf jaajëf Seydou Omar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax xanaa ah, tey ji yaa may jox café non la nii ngalax euh, hmm? la ñuy xaar dina da nga <laughs> koy remplacer ak la <laughs> euh, jërëjëf Seydina Omar Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant tamit di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb Adama Ndiaye moo fare woon ci xarale gi ci kaddu gi